jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi rafetlu sunu ànd ak yéen seen mbokk Talla Diakhaté xel ko moo nekk ci kàddu gi maa ngi nuyooti mboolem ñeent xaaj yi dégg sunu kàddu góor ak jigéen mag ak ndaw fu ci nit nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di siyaare mboolem mbokk yi ni bàyyi xel fii ci réew mi ak fële ci bitim réew waaye nag di beral nuyoo ak siyaare ci dëkk bu tedd bii ma yëkkati sama kàddu tey muy Touba Mbacké di siyaare Sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp mbokk yi nag ginaaw bu loolu jàllee tey li sabab ma yëkkati kàddu bokk na ci élection locale yeeg waajtaay gi moo mel ni bari nay bang bang trop euh, waaye tamit bari na ay campagne de manipulation euh, surtout sax lu jëm ci euh, élection yi nga xam ñu ngi koy waaj mu mel nag fan yëpp dañuy dégg ñuy def ay manipulation ci listu sëñ bi listu sëñ bi nangam sangam listu sëñ bi ñaan listu sëñ bi listu Macky Sall listu sëñ bi may xamal ñëpp ni Serigne Touba am lu ko suñu borom fàggul Euh, sëñ tubaa dafa am euh, cër bu ko suñu borom defal Touba dafa am lu ko wuutaleeg yeneen dëkk commune Sall Touba am lu maire Touba dafa am lu ko wuutaleeg yeneen i maire euh, ci wàllu doxalin waaye ci wàllu jëflante bi ni jëflante ci seen biir waaye ci ni ñuy doxee nga xam ni seen lépp rek dafay tege ci ndigal Abdou Lahad mi nga xam ne moom moo fi nekk di suñu mbokkum taalibe di sunu jëwrin ndigal moo ko fi teg tey jii bu neexoon sëñ bi du fanaan ci commune bi mën nañ fee indi ma Samba wala ma Demba teg ko fi kon nag war warmal sëriñ bi ci cadre yi ñu yëkkati di ko jëmale ci communauté rurale bi ak liste sëñ bi nangam sangam dégg naa sax ay kilifa yoo xam ne ñi ngi yëkkati ay kàddu naan kilifa yoo xam ne mbàkke leen sant bokk ci yoon wi euh, war na doon ñoo xam ne képp ku yëkkati kàddu goo xam ne dëppoowut ak kàddu gu ñu war a yëkkati ñu taxaw wax ak yow rek la waat la tegaat la ci sa ànd ndaxte dama jàpp ni euh, sëriñ Tuubaa moom ñun lépp lu ñuy def moo xam ñu yëngu ci politique moo xam ñu yëngu ci business ak lu ñu mën di yëngu nit ku nekk am nga sañ-sañu yëngu ca la la neex am nga ci plein droit mais na ni bàyyi xel sëñ bi na ni bàyyi xel dëkk bi na ni bàyyi xel façon communication bi ni communiqué ci dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké euh, sëñ bi sëñ bi la dañ ko war a war warmaal bu baax a baax a baax lépp lu jëm ci ay mbiram ñu xam nañ ci communiqué ndaxte nit ñi du ñëpp a yeewu du ñëpp jàng kenn ku nekk ak fa sa xel toll ni nit ñi sutantee noonu la xel yi sutantee kon nag am na yenn xeeti communication yoo xam ne boo ko communiqué rek ni liste boobu ñu naan liste sëñ bi di sëñ bi ku ko woteel ay góor jigéen nga muy loo xam ne lu garaaw garaaw garaaw jàpp naa ne sëñ bi kenn war a koo tudd sax di tudd liste di tudd lu jëm ci wàllu borom ñaari tur yooyu lu garaaw garaaw garaaw la te wàllu euh, borom ñaari tur yooyu ñuy tudd manipulation yi da cee bari trop ñu bari sax information yi ñu ci war a am dëgg-dëgg amuñu ko ci ba fi mu toll ñett ñoo romb sax ñu bari jàpp na ne ñett ñoo romb ñaar ña ay borom ñaari tur lan ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax xam ne mbir la moo xam ni euh, xel ak xam-xam moom moo koy lijjanti waaye du ay ak jekki-jekki di ko politique benn façon politique benn façon politique boo xam ni ku wooteel diw sàngam góor jigéen nga wooteel ak yooyu moom sa foo dama ko daax loolu politique la rek maa ngi ci yee ñëpp politique la ba élection yi jàllee ñi ko doon wax tey ji mën noo dem ànd ak ñi nga xam ne ñoom la doon attaqué nañ ci bàyyi xel politique dafa bari ay couleur politique nag dafa doon loo xam ne nit ku nekk am nga sañ-sañu politique waaye ngelawaay dëkk bi nañ koy wormaal di ko jox wàcc waayam ndax dëkk bi de borom dëkk bi li taxoon mu sanc ko ak eh, li mu ci doon jànkonteel ci bëgg doomu aadama jariñu eh, wuute na trop ak li ma gis jamono jii nga xam ni da nga gis ñoo xam ne daanaka seen rajo dañ ko indi ba ci 28 bi euh, ku woteel liste góor jigéen ñi nga woteel ku woteel liste bee góor jigéen ñi nga woteel mu doon lu garaaw garaaw loo xam ne ñëpp dañ ci bàyyi xel ndax ku ne xam na ni am na ñu nekk fépp ci àddina bi di yëkkate ay kàddu jamono ju nekk di ko jëmale suñu kilifa yi diine yi loo ñun ñun ñii ñuy jaamaarloo ak ñoom ci internet beeg fu nekk di ci jànkonteeg lu ne kon nag ngalawaay képp koo xam ne ngaa bokk ci njabootu sëñ bi sant Mbàkke del bàyyi xel ci loolu di xam di di bàyyi xel ni am na ay yoo xam ni Euh, war naa jóge ci keneen ñëw nga défendre kàddu yooyu waaye war ñëw séentoo kàddu yooyu ci yow nga ko yëkkati naan liste bi naan liste sëñ bi euh, képp ku ko woteel góor jigéen ñu nga woteel loolu man taal a jaxata xel ko mu rafetlu ma ko ndaxte Abdoulahat Ka mii nekk ci commune bi sëñ bee ko fi teg ndigal moo ko fi teg te tey jii bu sooboon sëñ bi du fi fanaan keneen la fi teg kon na ni warmaal sëñ bi bu baax a baax a baax te liste bii kan mbokk yi list bu fi yàgg yàgg yàgg la liste bi liste bu fi yàgg képp ku fi mos a nekkal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul am na cër boo xam ne dañ la koy cërale cër boobee nag day continuer ba faaw te nag mbokk yi ku fi mus a nekk rek moo xam ngay kilifa ak diine wala kilifa ak aada yàlla moo leen ni boole ngeen am relation boo xam ni euh, mooy tax li ngeen bëgg ci mbokki taalibe yi li ngeen bëgg ci njaboot gi loolu mën a am. kon nag di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax kaat yi ngeen yëkkati sëñ Muntaxa nañ ko jox cër sëñ Muntaxa mii nañ ko fonk lewetam gii wallaay la xasim lewetam gii ku ko ci topp da nga loru ndax sëñ Muntaxa dafa ubbi ñëpp ay buntam sëñ Muntaxa bëggul kenn mer sëñ Muntaxa saa boo ko fekkee mu toog ci mbégte nga koy fekkee kon gis nga kanam googu mu lay ubbil ak jàmm jooju ngay gis ci moom jamono ji nekk boo ko toppee ba jamono ji nekk nga jàpp ne lépp la neex wax lu neex def wallaahi la xasim ku ko topp mën nga ci jëre ak loraange te ñun ñëpp dana war a jariñu sëriñ Muntaxa bi nañ ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne su mën a ko muy liggéey sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te yenn xeeti kàddu yi ñu bañ di ko wax ndax day des ci internet bi day des ci youtube bi day des ci mboolem rek support yi nga xam ne dencukaay la nan bàyyi xel sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bàyyi xel dëkk bu tedd bii di Tuubaa képp ku fi nekk nga xam ban comportement ban comportement nga fa a nekkee waaye tamit di bàyyi xeet kàddu yi nga xam ne dañ ko yëkkati muy kàddu yoo xam ni ku ko dégg rek da ngay sëgg ndax la yoo xam ne du kàddu yu rafet ndaxte Touba ndigalu sëñ bi ku ne xam ne ndigalu sëñ moo fi dox. li may wax daal mooy maa ngi fàttali sama bopp waaye di fàttaliwaat mboolem mbokki taalibe bi yëpp ñu bàyyi xel dëkk bu tedd bii di Touba Mbacké xam ne dëkk bu nu war a wormaal la ay politique ak ay élection lu mu man di doon luy jàll lay doon ñu koy fàttaliku waaye sëñ Touba mii danoo am yéene ànd ak moom ba faaw. jébbal ko suñu bopp àddina ak alaaxira danoo sukk ni aslamtu nafsi kon nag lépp luy ak njabootam lépp luy bëgg sëñ bi na ci ñëpp man de engagé wu naa liste boobu ñaan liste sëñ bi man maa ngi ci biir liste ba liste boobu lépp luy tax liste ba aaru lépp luy tax liste ba yëkkati ko man a Diakhaté xel ko maa ngi ci liste boobu ndaxte man lépp lu ñuy tudd di tudd sëñ bi rek engagé wu naa ngir loolu jamono ji nekk muy gën a am ndam nan xool yenn xeeti kàddu yi ñu yëkkati te xam ne lu fi des la am na xeeti kàddu yoo xam ne soo du ko fàtte mukk nan bàyyiwaat xel suñu bopp baax a baax a baax xam ne liñ bokk mu ñu ko séddoo te mooy Serigne Touba Khadim Rasoul même buñ poñantee même buñ bëkkantee même buñ bëmaxantee jàpp naa ni ku nekk dafa da ngaa jàpp na nga war a defar rek mais li wérti daal mooy am na xeeti kàddu yoo xam ne kenn waru koo séentoo ci kenn ka gën a sobi xuma ak kilifa nga yëkkati yenn xeeti kàddu yi di ko yëkkati nan bàyyi xel bu baax a baax a baax ni kàddu yi dafay des jërë ngeen jëf